jununul hawa di seen émission bi ñu jagleel mag ñu baax ñi di muqaddam yi àndoon ak borom mbaar mi mawlaana maam xalifa ñas ngir waxtaanee seen taxawaay ak seen liggéey ci xadara bi ngeen mën ko am ci seen site internet naylul maraam point com site bay seetu ak tasaare jàngale maam xalifa ñas kon yéen a ko doon dégg mbokk yi fa tabarakallahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bi ñu ànd ak yéen ci seen troisième partie bu war a mottali nag li desoon ci waxtaan wi ak suñu sëriñ mooy almarja moolaya seydi as xalifa ñas ibnu haaji abdillah ibnu xalifatul haaji muhammad mi ñu tuddee maamam mu doon ko xam maamam itamit xam naa ne buy wax rek di nga xam ne moolaya xalifatul haaji muhammad baatinu turam wi jeexital na ci moom bu baax a baax a baax gis nga ndeysaan suñu deuxième partie bi ñu jugee moom léegi nekk deuxième partie bu doy waar waaye sëriñ bi 1958 ak 1951 bi ñu ci jugee ci yoonu Fuuta bu maam Khalifa yaakaar naa ne bu fekkee amoo loo ñu dolliwaat ci yoonu Fuuta bi mën nañoo dem ci 58 wala bu fekkee ci date yi ci diggante bi am na beneen date boo xam ne it dafa marqué histoire nga ñëwal ñu ci ndax ñun date yi ñu jàpp rek ci la ñuy laaj du ñàkk yow it yoo xam ne ni yow yaa ñu ko gën a xam te. 58 jàpp 59 boobu itamit day bu ñu intéressé ndax dafay mujjantalu dund ak maam Khalifa te mujjantalu dund ak maam Khalifa léppam kéemtaan la woon fa tabarakallahu loolu ci lañ bëggoon nga ñëwoon ci.
waaw 51 d'abord mu jógee Fuuta. dafa tombeek ay élection diggante BDS ak Osefio. Osefio di parti Lamine Gueye. BDS di parti Senghor mooy bloc démocratique sénégalais Eusefio di parti cadre BDS di parti de masse parti de cadre bi nag borom barke yeeg borom alal mi yeeg yëpp Lamine lañ àndaloon BDS baadolo yi mooy peuple bi ah Cissé Dia yàlla boole koog maam Khalifa booba infirmier africain la li ñuy wax léegi infirmier major mu nekk Gossas léegi ñu boole koog maam Khalifa mu sant ko listixaar kan moo ko boole moom
xam naa booba moom miinantewut ak maam Khalifa xamu ko dafa dégg maam Khalifa rek xëy na ku demee ni Ahmed Cissé Dia. kii ku demee ni Iyane. sii bu ndar. moo ko booleeg maam Khalifa. waaw maam Khalifa li si xaaral ko mu xëy mu ne ko ah yow doo mujj sax gosaas yow sa mbir ëpp na lii.
kan la wax loolu.
Cissé Dia.
Cissé Dia maam Khalifa wax loolu.
booba infirmier la infirmier major la. ñu teg ci weer ñu affecté ko mu jógee Gossas ñëw Kaolack fii ñuy wax service d'hygiène tam janoog mairie bu njëkk ba foofoo nekkoon bureau ñu consulté naan docteur Amadou Cissé Dia kooku nag mbiri maam Khalifa doy ko ndax da ko wax mu gis Senghor ñëw fii mu ànd ak moom téye ko ci loxo indi ko ci sama maam Khalifa pour mu ñaanal ko ah ba loolu amee wate ba tàng lool metti lool ndax booba nit ñi yeewuñ ay lakkantey kër ak lu nekk caawantey jaay lu nekk xew na ci jamono jooju si sa ja ñëw ci sama maam Xalifa ne ko Senghor de néeg bi ma ko dugaloon sax da koo génn dugg ca pantere ba ndax dafa jàq nee na daal mouvement Osefio bi ak déclaration yi ñu def ci rajo AOF sama maam ne ko loola lu pare la ña ma dégg ñuy wax yu Senghor duñ lekk duñ naan ba résultat yi génnee Senghor gañ gannaaw fuuta ji xarbaax boobu la jëkk a def fii Ibrahima Seydou Ndaw booba mook Senghor ñoo ànd mitig bañ mujj bañ mujj def sax ci buntu këram fii ci Mbambara sam papa demoon ca ba ñuy tas ñu ne ah léegi nag nañ déglu doomi xalifa bi xalifa Niass waaw mu ñaanal mbooloo mi ñaanal mi suba nangam nangam sam papa moom daf ne ah man nag li ma ciy wax du bëri mooy boo liggéey ci waxtu yi bañ joxe résultat Senghor mooy gagné te dana ko gagné nangami carte xam nga politicien loolu rek la mooy gars yi ndënd di yéeg sabar yi rëjëx coow yi de kur sam papa daal di ñëw kër boobu mi ngi ci néegi foiram yi mu ne xaritam yi géwél yooyu yëpp ñëw ne ko ah ñun de sëñ bi sëñ bi dañoo tiit de la mu ni mu amee doole te sa wax ji dafa rëy mu ne ah suba moom soreetut nañ xaar ba suba rek allahu akbar waaye ci ëllëg si ca waxtu wa ba résultat yi génnee Senghor gagné cawli ne ko xanaa xanaa kon loolu moo jur njabootu alaaj bu ndaw moom nekk socialiste
ah loolu yàgg na
macha allah waaw sam baab mos na ko wax Senghor ndeysaan
waaw ko ah yow nag ba sa parti bi tudd BDS ci lañ nekkoon ba muy tudd UPS ñu nekk ci ba ni mu tudd PS tous mosu ñooñu mosoo ñu ko defal ndeysaan waaw liggéey loolu loolu beneen waxtaan la macha allah
diggante boobu nag maam xalifa dal toog bu tukkee rek mooy muqaddama jiitu ci àll bi mu dem taxawee ko wala mu dem gàmm Kucey wala gàmm Kaffrine gu yaaburi ndaw ah moom gàmm yooyu rek la daan dem ku cay Kaffrine Kaf- kër Yaaburi waaw kër yaaburi ci Kaffrine la Kucey fii wàllaa dex bu mooyee loolu du dem fenn lu may xëy jàngale ba une heure rek kulli yow mi lu may lu may alxames ak ajjuma waaye yi ci def yëpp ci darsu bi lay nekk Euh, wala mbay wala nji waaw ñoo ko ah tool yi àddina bi yëpp daje nañ fa buñ sañoon nga ñëw baay baaraj baakar sa- sañc bu lay def fii ci boori wax ngono Euh, naweti ko daal di eh, faro mooy yàlla ji tawagul nga ji sa gerte limaam yëpp mu suul ko yóbbu sama maam xalifa nag àddina bi yëpp daje foofu sama maam xalifa def tasarufaatam yooyu yàlla ji taw ba mu demee ca ndeqi ma itam yàlla ji ne karaas wow tawut sama xale ba ba mu ñëwee fanaan fa ca la yàlla ji taw macha allah
àddina bi nag baaraj baaga na ko ah ñii de kenn mu lekk yee di du doy mu ne bu ñoree ngeen tibb ci waat jox ma ceeb bi ñoree ñu tibb ci waat jox ko mu ñaan tafli ci ñu delloo ko ci ceeb bi ceeb bi jeexut kenn mënu koo jeexal dafa des Euh, lim gënoon a lim gënoon a gaawee nag mooy mooy mooy baaw naan
baaw naa ci ban façon lañ ko doon defee
mooy ñaan xam nga woy na ko sax astamteru xayra ah baaw naan la waaw ñaan ak baaw naan la macha allah
wasaw bu ko fadl euh, wasaw bu fadlika fayaadun taxusu bihi xayya f- fayxal fayaafi am na ci boo xam ne naan zawat basaatinu ahli waaw kon am na fii at moo xam ne dafa okk Baye Ousmane Ndiaye ne dajale dëkk bi ne leen dajaleen hàddiyee ñu dem Kaolack ñaan ñaan sëriñ bi ñaanal ñu ndox ñii joxe ñii ñii ne duñ joxe mu jël lañ joxe jox ko baaxadi baaxadi dox ñëw ba ñëwee wax ko sama maam sama maam ne ko waa baax na ñu dem rek mu dellu ko cey bañ tolloo bay të bay tëdd ñu dégg yàlla ji dënnu ci suuf ah loolu dënnu ba nit ñey tëddët ndaw ndox mi sóob tawa tawa taw ba fajar mu ne keret nit ñëpp sawar xëy rek takk seen bagage yi dem ci tool yi la cay xéeme nag mooy ña joxewutoon ndox toqut ci seen tool da ngay digaloog nit mu joxe kooka tooyam toolam tooy ba na xepp yow sa too mel ni noor gaa yi wàcc ña ña joxewutoon daal di delsi ci Baye Ousmane okk o o ñoo okk ndong ah man de sëñ bi faa kii woon nangam Baye Ousmane ne la ah ndigg di xam nga mag ñi noonu lañ daan saaga ndigg di ah yow leen hàddiye ngeen di am lu ngeen di laam-laamal xap ñu dajale at coox baaxa di dellu Kawlax ba mu del saatee mu taw ci guddi gi maasale xam nga yooyu karaama waaw bu xewoon feneen soobee yàlla am na ñoo xam ne ci la ñuy majaalee te samp ci seen kër baara ñaan mu ne boo bi ngi toll ci gon ak bukki mooy waxambaane wu ndaw mu ne maam xalifa ñëw ñaaneen am muqaddam bu fa génnoon àddina dañ mu ko taxawee waade ba pare ñëpp toog ci suuf moom kenn moo toog ci sees booba ku ñu wax Alsaan Diouf moo nekkoon chauffeur yi commandant de cercle bi moo ko indi woon booba oto amut maam xarit bëggoon na tukki commandant de cercle bi moo koy abal otoom ñoom yàlla defoon ñu bëgg maam xalifa mu bëgg a dem ñu ne ko deet sëñ bi mënoo dem de mu ne lu xew ñu ne ko asamaan saa ngi aju def asamaani noor wàcce nañ kaamil def nañ istixfaar ñaawlu nañ def baaw naa ni wolof dara ndox toqut mu ne ah loolu nag moom dama koy jaay am ngeen junneem ah booba junne jafe na de ñu nit ñi joxe joxe joxe ñu ne ko am nañ juróom benn téeméer yu teg wecceet mu ne ma ne bu matut junne duma ko laal sëriñ daara ba mujj ñëw ci géew ba jóg dem këram indi ñaar téeméer teg ci ñu ne ko am nañ juróom ñetti téeméer yu teg mu ne ma ne bu matul junne du ma ko laal sëriñ daara bi jógaat dem këram indiaat beneen ñaar téeméer ñu ne ko am nañ ju junne bu teg mu ne kon nag kon nag bisimilah loolu rek la wax jóg tàllalut loxo joxewut dog yow dafa jóg rek ne bisimilah asamaan si rëdd xiin ba oto ba déparé ndaw ndox déedéet ndox mi sóob xàll wu mag ba oto àggu ci dafa taw ba mu ngiroo walaay dami ñaan mu ne moom ñu duggoon ci ron oto ba di waxti waaw ca la bokk amut diggante bi mu jógee bi muy taw amut cinq minutes xar baax yooyu am na ci beneen at moom dafa okk ku cey Baye Ousmane yebal fii baaxat yi maam Xalifa daal di bind benn téere ne ne ne waxal tafsir Ousmane ne ko bu xëyee mu won ko jant bi bu tafsir Ousmane moom Ousmane Anta la wala du moom déedéet tafsir Ousmane Ndiaye ku ku tafsir Ousmane Ndiaye ak tafsir Ablaye Ndiaye ñoo fa newoon ñooñu Malick Sarr mooy seen baay moo leen jur ñoom ñoo meññ waa Kucce yi macha allah Eh, tafsir Ousmane moom moo jur Ibou Ndiaye ak Malick Hawa ak ñeneen ñeneen waaw kële tafsir Ablaye moo jur ñoom Ousmane Anta ak ñoom Alla Bada ñoom Modou Satou moo leen jur léegi mu jox ko téere bi ne ko boo xëyee wan ko wan ko jant bi bu ko wanee jant bi dugg ci néegam asamaan si soppeeku tawa tawa tawa tawa tawa tawa tawa ba mujj gi bi bàyyi Ousmane ñë- xëyee danaan naka mu ma wan téere bi jant bi ñu ne ko déedéet doy na doy na doy na
macha allah sëriñ bi
beneen bi caameen waalo la caameen wala kucce yi bàyyi laa jomar moo ma ko nettali ndax moom ñëw na daa nekk na daara kucce yi nekk na daara caameen ñu jàngal xuraan mu ne dafa ñëw ah tool yi de jaaxal na nit ñi mu ne sama maam jox ko benn mbóot ne ko boo demee nag na nga ko suul boo ko suulee yàlla ji dana indi ndox waaye nag na nga ko suul foo xam de boo ko suulee foo xamut du sebeti de ah waaye ñoo dem suul ko wutal ko màndarga ba ñuy tëddal rek yàlla ji soob xaaca ca ca ca ca ca ca xaaca ca ca ca ca ba bët set muy taw ba midi muy taw ba jant soo mu tawaat ba ci ëllëg sa mu tawaat ba guddi Bara Jomar mu ne mu génn xuus taw bi dem sulli ko fa mu ko suuloon fa la dem sulli ko indi ko ne mu ne keret asamaan si ne keret ñoom am nañ mbóot yoo xam ne te loolu ci taw la mais ci geneen wàll gi itam bu dee ci xaalis bu dee ci ku ku ne dafa të am doom buñ ne feebar bu kenn mënta ragal ndax alaaji badu moo nekkoon docteur yi maam xalifaam ah moo nekkoon médecin bi waaw léegi jabaram moom fu mu dëkkoon alaaji badu moo nekkoon hôpital yi kaas naag bi moom jidda la génne àddina en 62 mook Baye Alaaji Omar ak Baye Alaaji Bakar ñoo dem aji bi mu ñëwee ba ci aéroport bi nag tension daane ko ndeysaan
mu des jidda foofu lañ ko suul jabar ji nag moom docteur la dafa feebar ñu yóbbu ko mu passé ko rajo gis ne jë- jabar ji waratuta dund lopp juróom benn weer mu wóorut boppam mu jox ko yeneen i médecin li mu gis médecin yeneen yi gis ko mu jaaxale ñëw ci sama maam wax ko ko sama maam ne ko ah demal ba suba xanaa noo ko mu ñëw mu ne ko ah médecin yi waxuñ dëgg de kii deeagut léegi demal génne nangam ak nangam sarax kooku xam nga kañ la génn àddina 88
ah waaw ci jamonoy moom Khalifa la lañ ko condamné woon moom 88 bii da door a génn àddina kon yooyu anam yooyu ak ñi ñi dof ñu indil ko ko comme boogi xam ne ko fe dafa am lu ko feeñoon ci géej gi sàll la sant waaye boogi gi mu daan wax boogi boogi sama boogi dal na moo tax ñu ñu fàtte tur bi boogi dañ ko indi sama maam jéng ko muy dóori ponkal ñu dugal ko ci pantre fii ci fi jumaa ji nekk ci sama papa dëkkoon xam na tiwi di banque bu newoon à gauche sama maam bind saafara jox ko Baye Rajo Ibrahima mu yóbbul ko boogi Baye Rajo Ibrahima ñëw rek boogi pes ko sa sa saafara sa tuuru mu daaw ñëw ci sama maam ne ko ah baykee kat day dóore kenn mënu koo jege mu bindaat saafara o iyaan booba cerno lañ koy wax xool ma cerno cerno mu ne ah demal yóbbul ko dof bi cerno ne ko ah damaa dégg ñu ne day dóore de mu ne ko boo demee du la def dara defal mu dem jub boogi boogi di ko feccal naan ko carno carno suma carno carno carno ca ñoo jox ko saafara si mu naan ko teg ci ay fan mu ne cooc sol mbuuba mi rafet du bokk ak Baye Laaj Ibrahima tëdd kooku nag dund na ba jur doom boo xam ne moo nekkoon ambassadeur yi Gambie fii Dakar boogi boobu boogi boobu jaar na fii ci kër gi yeneen yooyu ay xar baax yeeg kii yeeg yu xéeme yeeg yooyu moom boo ci doon waxtaan ba suba du jeex ku ci nekk am na foo jaar ak moom ba ci Aliou Ngouti nii nga xam ne bi mu tolloo ci beqi ñëw na ziyaara ci sama maam ne alxuraan da ko tëx joxe ñaandu mu ne ba mu jógee fii xaw ma jàkk jan la dem ci dëkk ko yi ca jàkk ja la dalal yore riim ab këyitam ci la bind kaamil bi te gestuwut bind rek mu mel ni dañ koy sol aaye rajo Modou Gueye mu jaleñ mi ñuy jàng nax wutam tëgg sama maam la ñoom mu ne ko demal saraxe xorom mu ngoog sarax ngoog yool fa ji kon dafa doon koo xam ne dafa simple nëbbu dégg nga de def boppam niti kese du yàlla bu ñuy jaamu waaw waaye nag Saalum moo bindee noonu ñun amuñ loolu waaw amuñ ay xuraafaat yu ñuy jay nit di da éegal ci maqaama yooyu nekkut wala ñuy inventé di sof ay affaire di la ko teg pour lu la yëkkati nit moom nit yàlla yàlla moo ko yëkkati te fa mu koy teg yow mënoo koo gis du lu bët di gis te nag liñ koy liñ koy doyee mooy rambu nit ñi ëllëg waaw rambu nit ñi ci ëllëg bokk ci rammum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy xalifatul haaji Maamar léegi diggante cinquante et un ak cinquante neuf.
ci laa ci laa bëggoon a ñëw parce que man damaa gis nga dugg ci affaire yi taw bi rek yàlla jaa ngi xiim ba ñuul kukk fi mu doon nii rek xam naa yow moom noonu sa yaram dafa tàng waaye asamaan saa ngi ñuul kukk te yàlla jaa ngi wis te yaa ngi woon ak maam Khalifa ak taw xam naa ne bu mooy buñ ci continuer mu taw mu taw mu taw moo tax fi mu doon nii ma bëgg nga ñëw ci cinq cinq nga ñëw ci cinquante huit ak cinquante neuf.
waaw mooy tombanteeg période génn àdduna beeg gee ci ajoog yooyu noonu noo ñu ko tënkalee.
waaw ba nga xam ne nii li des ci suñu taal dinañ ko ci mën a jël
cinquante huit Cheikh Tidiane si ñëw na fi gannaaw bu sëñ Babacar si génne àddina nuy si sama maam fekk sama papa génn sama papa bi mu ñëwee mu ne ko ah Cheikh day ñëwoon na fi dafa ñëwoon kër ni yaayam kër sëñ Abdul Hamid kan kër maamam mu ñëw nuy si ma am bàpp nag daal di ciy kontaan def ci xasida boobu farixal bilaadu bi maqdami tijaani mu def wa wal kullu fi bishrin wa fi tahaani sama maam mu ne ma bi ma ko wanee sa maam mu ne ah rafet na de waaye boo defoon wal kullu xilfu masarratin wa tahaani ci lay gën a ne mu ne ma sa maam kenn mënta woy ci wetam waaw yooyu beneen affaire kooku dama lay wax rek ayatun mi ne ñun ñun xam nga li ñu xam Sénégal moom li ñu xam mooy lu ànd ak ci sabar ak ci tamaak yi riiteeg yëf yooyu ay taaxuraan ak yooyu lañ xam waaye ñi nga xam ne arabiya xaalisa la ñuy wax am saqaafa islamiya arabiya ñooñu du ñëpp leen mën a comprendre du ñëpp leen mën a dégg ci ci wolof dégg nga de seen maqaama daf lay réer parce que da lay jege ba mu ëpp ndax amut bëkk nekk amut tëju fukki fan ak juróom amut nga ki ñu naan la sëñ bi dafa jàpp ak xataa mag yi dëkk bi daanañ tëdd ba guddi ñu soxla ko bu ñëwee sama maam ci Aliou Niass la leen di jaarale ku ku ma soxla ñëwal ci Aliou Niass bu ko defee Aliou Niass mooy seet sama maam fu mu fanaan fëggu ko bu ne kookaan la mu ne ko man laa lii moo bi bunt bi taal làmp torche bi teg ko ci suuf mu ne ko ah bàyyi diw de yi ci notable yi dëkk yi moo la soxloon mu ne ko na agsi kooku ñëw wax soxlaam yëpp mu oo Baye Aliou wax ko li mu koy defal boole ko ak moom kon nit la koo xam ne ñi ko xam duñ ko dendale kenn ñi ko xam itam dañ koo bëgg ba jeex ci moom ndax woyofam ndax sellam ndax ak jegeem yàlla ak doxa dal xaddina xam nga dal yim daan sol amul ndeyjoor ak càmmooy bu bu ci tànk bi dugg rek jeex na da dàll yëpp a déformé waaw moom bi càmmooy loola ndeyjoor amul soxla taalibe yi mos na ñëw ñëw waa Kouthia yi ne ko ah yow nag yow saa booy tukki oto commande nga yàbb léegi dañoo bëgg daal utal la oto taalibe yi dajale addiya yi mu ne déedéet jaru ko Alsaan Diouf fi bu ma soxlaa rek wax ko mu dem ci commande nag ma abal ma oto doonutoon kuy tukki di def ay tournée ci taalibe yi déedéet tukki moomu la mos a tukki mu yàgg te bëri fu mu dem cinquante cinquante neuf mu daanu feebar te daan feebar ak a wér nag léeg-léeg léeg-léeg mu nga ñëw daana tane sax di bañ nit ñi jaaxle te fekk sax tane bi demeewul noonu waaye fi mu daan jàngale néegi pet la woon ñu mbaar ko ci kaw ñax di ko war a nekk pet nekk ñaari buntu sarale ñu lal fa basan yi day ñëw tëdd jubloog pet mi wan nit ñi gannaaw nit ñi ku nuyoo mu fay la nga toog waaw bi muy génn àddina nag weeru baraxlu la di ne mars cinquante neuf bésab dimanche ci yoor yoor bi la oote bàyyi laa ñomar bàyyi laaj Ibrahima mu tàllal loxoom ne Omar tegal bàyyi laaj Omar teg loxoom mu ne Ibrahima tegal bàyyi laaj Ibrahima teg loxoom mu ne bu ma fi jógee boo liggéey nii laa bëgg ngeen mel liy xew ci yeneen kër yi di xaajoo ki yaaw fii ki yaaw fële loolu bëgguma ko ci sama kër gi maa ngi leen di dénk sama téere yi nañ ko muul mooy mooy uqudul jawhar moo tax wax naa Sid Lamine ne ko yow yaa àggale sa mébétam bàyyi moo tax yow man nga am lu nekk lu la neex def kenn du la mënul tus mu ne ma lii jiital seet yi li ñuy wax day moom lay wax ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj waaw waaw mu ne itam sama daara ji bu mu fay mooy jàngale mi loolu taxoon Baye Rajo Omar jàngale na ba mën a tudd di tëdd ñu koy indi lal piko bi ci lay tëdd di jàngale dénkaane ya Baye Rajo Ibrahima itam jàngale na waaw mi ngi ci kër gu mag gi ba nim toxu ci këram gële ci penk jumaa ji itam di jàngale ba bi xale yi màggee lañ ko aw ku demee ni Ousmane Thiam kii itam Baara Ñomar bi mu fi jógee Habib moo ko aw di jàngale kon li mu waxoon ba tey mi ngi fi fayut njàngale mi fayut
dañ na bis boobu noonu muy dem muy génn àdduna
bis boobu bis boobu wane na ay kéemaan yu dul jeex ci yoor yoor bi daf ne ah fajkatab xaajo baa ngi dem booba xam na ne moom war na gannaaw àddina jëmm ji daana toog ba mu yàgg mu fees néeg bi dell boobu yaa faama rek fay def yaa faama mu ne def na ko benn bés ma ñëw sa baay moo ñëw fekk ma fa ne ma yow nag yow faama yorewoo fitu fitu jigéen am na itam benn bés yàgg naa ci bés boobu la sax baat boo xam ne dafa nuyoo ne asalaamaaleykum ñu ne ko aleykum salaam ak seet bi ak seet yu bëri sax bàyyi lañ ko tegoon ñu daal di génn gisuñ kenn ci marax gi ci la ci la génn àddina gannaaw timis waaw maa ngi fàttaliku kër Baye Cheikh Omar wala kër Baye Maniès amoon na kuñ fa waroon a muur buñ tegee beñuwaar yi bëgg a tëgg xanaa Baye Cheikh Kouta wala bàyyi ma caam moo moo moo teg tànkam ne leen nag bàyyi leen li ngeen bëgg kii teykat mbir a xew xalifa génn na àddina léegi muy bésu dimanche boobu ah ñu ñu sangu ko sangu ko jullee ko
jullee boobu nu mu demee jullee bi mooy doomam yi doomam yi jullee nañ ko taalibe yi njëkk a ñëw doon muqaddam yi maa ngi jullee nañ ko comme niñ defoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wafdu bu ñëw jullee ko ñu fanaanal ko bët set ci yoor yoor bi fekk bàttale woon na ne buñ koy rob nañ ko yëkkati ba nit ñi gis ko ku ko gis sa yaram xaraam na safara mu ne ñetti sàppe mi njëkk ku jëfandikoo poon bu ci bokk waaye jëkk mu génn kër gi nag am na lu fi xew dafa mujj diis gann ba kenn àttanu ko ñi ñëwoon jàpp ci jaxaat ji yëkkati yëkkati yëkkati mënuñ ko yëkkati kenn àttanu ko ñu ne loolu nag bu xewaan dañuy seet ci njabootam ku ko jege mu téye ji ñu oo bàyyi laaj Ibrahima mu téye ci jaxaat yi moo yof tooy ñu yëkkati ko beneen kéemaan xew ji waa Paris Dakar journal bi ñëw yeeg ci tiwil yi Baye Amat Thiam bi foofu ci buntu kër gi booy dugg sa càmmooy kër gu mag yéeg di photo mbooloo mi ñu ngi taaw jaat ji waaye bi ñu photo doo gis jaat ji mbooloo mi rek ngay gis mbooloo mi ngay gis waaye doo gis jaat ji photo yi mënuñ koo jàpp ñu tëral ko
am nañu wax ne bis boobu biñ koy génnee ci biir mbooloo mi bi mu xawee jafe am nañu ne bàyyi si boppam moom moo mujj
déedéet déedéet booba bàyyi bàyyi booba mi ngi ci digg dooleem digg kàttanam kaala gi la foofu takku ci ndigg li ci ñi doon xal pour mu dugg ci xabru bi la bokk ndax boobu macha allah maam bàyyi booba ku ne ci ku dox di ku dox ci kanamam bu bu la sëqee benn loxo la lay sëqee sëpp la ne la ñu tëral ko seede ko waaye seede bi bi ci gën a am solo mooy seede bi ko maam Baye seede ndax daf ne maga ngi nii joo xam ne alaxira ba mu jëm du fa fekk ku ko gën te àddina ji mu bàyyeekoo bàyyiwu fi ku mel ni moom wax ju rëy la nit ñi dégguñu wax ji sax waaye seede yëpp boobu moo ci gën a fasaa gannaaw gi nag ñoom ñëpp martial nañ ko moom moo ko jullee moom moo ko jullee
am dañ ci waxtaan werante léeg-léeg kii ko jullee wala moom am na ñu naan doo de sa ñabdu fekkeewul dëj ba gannaaw gi la ñëw jaale si Seydou Nourou Tall itam ñëw jaale si Mamadou Dia ñëw jaale si
sëñ Abdou nañ bi mu jaale see sa papa la fi fekk waaw ñoom ñëpp sam papa lañ jaale Seydou Nourou nag bi mu ñëwee daf na ko alaaji mag ñi ñëpp fukki at lañ dund mu ne ko maam alaaji Abdoulaye mu jógee Faas ñëw Kaolack gi fukki at la fi dund yonent bi itam daanaka fukki at la dund Madinatul Munawwar mu ne ko mag ñi ñëpp yoonu yonent bi lañ jël fukki at la ñuy dund ne loolu la ko si nuur wax ñoom ñëpp nag ñaanal ko tas jeex ko encouragé ko dégg naa am na ñoo xam ne yore woon nañ tawat sax ci bis boobu keroog lañ tàqalikoo tawat ba ci bisu waaw kooku sëñ Ousmane Kan moo ko wax sama papa daf ne ko li ma lay digal mooy lépp loolu sa bàyyi mu sa defal wax ko fii ci mbooloo mi di jaata yeeg xilaaba gi mu la jox ak lépp nit ñi yóbbaale ko seede
booba mu ne- booba mbooloo maa ngi teew waaw boobu mbooloo maa ngi teew dëj bi tasagul robaguñ ko sax boobu biñ koy jullee di ko seedeel mu ne sama mu ne ma ca laa jàppee Ousmane Kane ba tey mu ne mu ne ko nag bañ fi jógee mu ne ko nag alaaji ah sa baay day defal na ma loo xam ne mu ne ko ah mu ne ko biñ koy rob bi ma téye ci jaat ji laa ne boobu mi ngi yore ndigg loo xam ne da koo sonal lool mu ne ko xalifa mii day bu ñuy wax bu ñuy wax ne wëllu yu la bu fekkee dëgg la sama ndigg lii na na- naa tàggoog moom mu ne keroog la gëj a yëg lu koy métti ci ndigg moom sëñ Ousmane Kane moo ko nett di sampaab Alaaji Abdoulaye Xalifa kon maam Xalifa kéemaan la li ko tàggee ci àll bi sax kenn xamul nit la looloo jaaxal nit ñi kay ndax booba rajo yi amuñ télévision yi amuñ portable amut euh, téléphone yi ci euh, taax yi la am te bi ay benn benn ko amoon waaye dëkk bu nekk rek ci marax gi am na ko fa jaar ne Xalifa Ñas génn na àddina Xalifa Ñas génn na àddina ba ci Mor Abdourahmane mi nga xam ne tey moom la dénkoon doj wa loolu doj wa waxoon naa ko ci kiibale ñu doj wa nu mu mujjee nag mujj nañ ko ko suuraale waaw moom lañ ko suuraale ndax Mor Abdourahmane dafa mooy daj wam jëlee woon faas bokk ca yañ gegenaloon Cheikh mu dénk ko yaa fàttu ab Mor Abdourahmane la ko bàttale woon te Baara Yomar mu jaaxal ko ne kii dëkku fi naar la gànnaar lay ñibbi man mi dëkk ak moom maa indi téere yi maa koy yóbbu lu tax santuma ko waaye moom xam na ne bu boobaa xëy na kii xelam day jaxasoo xelam dootu ci dem te li ma waxoon dëgg la ndax booba kenn fàttaliwu ko moo tax maan kenn xamul ci àll bi la déggee dëj bi ñoom yëguñu woon sax ne ñëw na ma dem ci àll bi di wuti àddiya moo ñëw rek cëppeelu ci pax mi ne kenn du ko suul ñu ne lan mu ne alxajar alxajar doj wa doj wa sama baaraaj ma ne ah wax na dëgg boo ko sama bàyyi di bàttale maa ngi toog ñu ne fu mu ne ñu ne ci fàttu ñu ñu jokkalante ko ba mu ñëw ñu gegenale ko maam dégg xalifa naa fi mu jaar sax yaa ngi ñuy mos na te benn jour ne nit ñi dañ ko doon barkeelu di ko déet déet déet déet como yi de de- de- como yi laaluñ ko di Aha.
kilifa yi ñoo ko doon jokkalante doj woowu kañ kilifa rek ko laal waaw te kum ñëw rii di wag nga sa mbubu diw ko ci sa yaram door a jox ko ci kanam ba mu agsi ñu ñu gege ne la ko rob ko bésab altine yor yorab altine lañ ko rob moom moom xale ba muy muy cinquante neuf mais mars cinquante neuf ci boobu nag ci la doomam Alaaji Abdoulaye toog ci ci palaasam di xalifaam ba quatre-vingt-onze boobu xëy na danañ ci wax waaw xam naa suñu beneen partie bi ci la ñuy ñëw incha allah ci fan yi rek kon mbokk yi ñu doon suivre ci naylul maram point com dégg nga sëñ bi ndeysaan li ëpp ci waxtoom yëpp jox nañu ko bu ñëwee day bàyyi activités yi muy def yëpp toog nekk ak ñun nekk ak ñun lu julli rek du dagg lim nekk loolu yëpp mi ngi ñuy soññ dañu wan nañu li ngeen nekk maa leen ko gën a bëgg te lii it moom moo ci jiitu woon ñëpp xaj na waxtaan yi dana ci mos a àgg ñu war a àgg ci niñ taxawalee daayira yi ñeseen ndax loolu it tamit ci numéro yi ñuy préparé ci yeneen jamono ci lay nekk ñu ngi ci liggéey maag Mawlaay Idrissa Dioum ci format émission bi ak Cheikh Babacar Touré waaye yëpp gis ngeen waxtaan wi ni mu doyee waar te moom dama koy wax chaque jour waxtaanam lu ma ci gën a neex mooy buy gën di sori rek ngay doo ngay gën di bëgg waxtaan yu gën di continuer ndax ndax bu tàngee rek ñeseen gi feeñ kon fa tabarakallahu kon mbokk yi doon déglu spécial maam Khalifa ak Mawlaay As Khalifa ibnu Haaji Abdillah ibnu Haaj Khalifatul Haaji Muhammad kon mi ngi noonu jëlal nañu maam Khalifa ci point yu doy waar yu jafe yu sensible waaye itamit loolu yëpp teggin geek yar geek loola mu daan wan ndaw ñi feeñ na ca ba nga xamee ne ku koy déglu da nga ko mën a dégg maanaam tamit spécialité am feeñ na ci tamit ba nga xam ne tamit dégg maam ku ko bëgg a déglu dana oyof pour nga mën koo dégg mu tollale ko jamono ba ndaw ñi mën koo jëfandikoo loolu yëpp nag dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi yàggal fi ay kemam ak i mbokkam ak i doomi bàyyam ak i wóolëreem ak ñi mbokkat xadara bi yàggal fi xalifa bi Mawlaay Haaji Ibrahim seen naal ci kër gi yàlla mottali ko ñun ñi tamit nekk seen rakk nekk ci seen i ron seen i bébét ci ñun yàlla defal ñu ko ñun ñëpp fa tabarakallahu yàlla fayal ñu maam xalifa fayal ñu maam alhaaji abdullahi ak mboolem njabootam barke maam xalifa yàlla na wàcc ci ñun ñëpp xanaa ñu jox sëriñ bi mu tàggatoo rek ñaanal waa Naylul Maram dénk leen ñaax leen ci juróomi minute rek wala ci ñetti minute ñaanal ñu ndax ñaanam it dañ ko soxla na moo xalifa ab xalifa alxaaji abdillah kon sëriñ bi lan ngay tàggatoog ñun ci spécial maam xalifa bi ñu doon waxtaanee sa turandoo gannaaw boo waxtaanee ba pare lan ngay wax ci Naylul Maram ak lan nga leen ni ñaanal yàlla
waaw di sant yàlla rek ñu ñu may fursa bi de di waxtaanee kenn ci góoru yàlla yi li nawawi waxoon rek ànd zikri saalihiina tatanazalu rahmat ñu yaakaar leen leen ko yaakaaral ko suñ bopp yàlla taw ci ñun xéewal ak yërmande faj suñuy xaaju faral ni suñuy bakkaar ngeen di def liggéey bu am solo nag xëy na du ngeen ko xam léegi sax waaye ay années plus tard da ngeen ko xam ndax yéen source sûre seen seen seen émission ak seeni documentation amul xuraafaat amul loo xam ne lu ñu inventé la ndax wax moom fa mu jógee bu fa leere rek fa mu jëm dana ko dana fa leer xol yi danañ ko nangu gannaaw bu ko noppi taataanee ndax amul lu ñuy segg lépp dafa ñëw naturellement ndax ki ñuy waxee ki ñuy waxtaanal ki ñuy waxtaan ci moom nit la ku simple koo xam ne amul benn tëkkalluf yàlla da ko bindoon pour njariñal doomu aadama yi kiy jariñ nit ñi xam nga li tax booy jàng téere yi ñu ne la feebari wàlle du dalab yonent mooy ki nga xam ne nit ñi dañ ko war a jege pour seen njariñ bu amee luy wàlle nit ñi dañ koy daw naka noonu itam sëriñ bi nga xam ne dafay jariñ nit ñi day yomb a gis day wàcc boppam ba tolloog nit ñi ba boo ñëwee da ngay xool xool ne waaye kuy sëriñ bi sax ñu ne la mi ngi nii ci biir taalibe yi waaw ndax njariñ mu njariñ li mu war a jariñ nit ñi ci toogaayam ci waxtaanam ci wilaayam ak maas nit ñi àggale leen ci yàlla kooku noonu rek la war a mel kon ki ñu waxtaanee noonu la mel yéen itam def ngeen ci ay mashhudaat yoo xam ne njëriñ li léegi mënu leen koo xam waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek ci barkeb kooku fu ngeen bëgg a àgg yàlla ngeen fa àgg te yàlla na jamono ñëw ba ngeen am seen télévision bopp boo xam ne du ngeen ko bokk ak kenn te lépp luy xewi ñeseen ak fu mën a nekk mën ngeen koo jël en direct àddina bi yëpp di ko seetaan yàlla na yàlla def loolu yàlla fanqal leen pakk yi ak gaar gaar yi ndax yéen ñu jafe ngeen ci jamono ay ndaw yoo xam ne dañoo consacré seen temps yëpp ci émission yu demee nii ak wane góori yàlla yi loolu yombut te utu leen ci dara lu may yàllaay kese loolu ci jamono ji nga xam ne ñëpp a ngi daw uti xaalis ñii daw uti pouvoir ñii di song politiciens yi ñii dem ci mbëri làmb yi ñii dem ci affaire yi football ak sport ak yi demee noonu ngeen ngeen jublu ci yoonu yàlla yàlla rek am seen bay yàlla na leen yàlla fay waaw te itam exemple exemple ngeen ci jeunes yi buñ leen royee am na lu tubaab yi dugal ci nit ñi ci ay aadaa ki ay ñaawteef ah nit ñi danañ ko mën a moytu bu baax bu ñu royee ci yéen di ngeen di def yàlla nañ ko jariñoo liñ ciy wax yàlla nañ ko dégg te buñ ko déggee itam jëfee ko te buñ ko jëfee yàlla nañ ci yàlla yool yàlla yokk wërsëg wi yokk fan wi te maye wér ci daraja yonent bi barkeb Seydina Ahmad Tijaani Sharif radiyallahu anhu barkeb Maamalaay Jaan njabootam barkeb xalifatul haaji Muhammad ibnul haaji Abdoulaye ak njabootam barkeb Sukayri ju ma zalika àlalaay bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
mbokk yi mi ngi noonu kon nag yéen a ko dégg duñ ci teg dara daaneel rek in uridu ila lislam masaatu wa ma tawfiqi ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh